asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar comme niñ ko baaxoo di defee saa su ne kàddu gi di jóge fii ci grand théâtre ah. waa ñu leen di wax ni ñu ngi leen di béggee saa su ne waa di jaajëfal alaaji Modou Cissé borom wadduha point org waa di ko ñaanal jàmmam yàlla na yàgg waa site boobu nga xam ni ci ci diine rek lay dox ak lislaam waa ñu ngi lay ñaanal bu baax jàmm yàgg bu baax a baax fi ne nii nag tey maa ngi jëm ak yéen ci wax ji nga xam ni moom la sëñ Muntaxa wax mooy képp kuy mars ak di ñaxtu na nga fexe ba bul ko bul ci boole Tuuba marsuñu ñaxtuwuñu wala ku ci am sa téll téll ak sa rajax-rajax di mars ba egsi Mbàkke ca entrée ba nanga nga yem foofu booy wax ba dugg biir Tuuba di mars GIGN du ñëw gendarmerie du ñëw police du ñëw bàyyi faal yi dañ lay booleel dinañ la wol ba nga nooy nepp ngeen xam ni euh, wàllum Tuubaa moom daray caaxaan daf cee nekkul Sëñ Muntaxa kàddu googu la joxe na nangeen xam ne nag Tuubaa benn baat moo fa am buy dox muy Sëñ Muntaxa mooy joxe kàddu yi te lii la joxe wallaay war a sóoli bu fi kenn nekk naan da ngay yëngal jëmale Tuubaa wala ngay mars jëmale Tuubaa foofu diinee fa am ak ngor ak lislaam loolu lañuy dund bu fa kenn dugal geneen mbir naan da ngay marché si fee dëkku sëñ Bàmba la de ku fa ñëw di am looy piliqué dina dinañ am luñ teg ci yow fowuñu foluwuñu sëñ Muntaxa loolu la woote fowul foluwul kuy marché na ko yamale Mbàkke bu la neexee ngay wàcc di ñëw ay ay ay bambay yooyu nag waa ba egg si Ndakaaru mais Tuubaa moom soxlawuñu fa mars na ngeen ci dimbali loolu la sëñ bi joxe ci ndigal jërë ngeen jëf yàlla nañu yàlla defal jàmm ak tawféex sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal bu baax a baax jërë ngeen jëf ñun murid yi moom xam naa ni comme dégg nañ ndigal loolu xanaa sañu ñoo dem di yëngu ci lenn loo xam ne dëppoowul ak ndigalu sëriñ bi jërë ngeen jëf